mu doolu ñu def sutura ak wërsëg ci barkeb alxuraanu karim di wax ni ngeen woy de abonné tey partage vidéo yi te di ko sem comme neen ko baaxoo def nag saa su nekk tey ñu indil la loo xam ne bii mu ngi jëm ci wàllu bayre li jëm nag ci wàllu bayre bayre jigéen la bayre jigéen nag buñ koy wax pour ñi nga xam ne bii dañuy yëngu ci lu mel ne xeeti ay ñaw wala ñuy jaay yi nga xam ne soxna yi das ko yittewoo ñoom la gën a intéressé ndax ki ko laaj ci xeet yooyu lay yëngu moo tax ñu indil leen ko mu doon bayre jigéen boo am doole lool bayre bu am doole la ci wàllu soxna yi bayre jigéen bu am doole lool la ci góor goo xam ne jëfandikoo ko ko tey yëngu ci xeet yoo xamante ne bii dafay laaj soxna yi di la dikkal incha allah rabbi des na la dikkal ba nga yéemu ci kàttanu suñu borom waaye nag laata loolu ñu ngi gërëm bu baax kilifa yi nga xam ne bii ñooy topp seen bi ndax fax dëgg dañ ñu woowee fu nekk di ñaanal fax dëgg nga xam ne ñii li ñuy wax seen xol lañ ko tibbee ngir lan alxuraanu karim ji nga xam ne moom la ñuy indi di ko baaxee sunu mbokki taalibe yi waaye di wax ni ñun ay tu tànk la ndax ragal naa seen bi xam naa ni ñu ci baari doon ay kilifa di ñu topp mën na noo jur wallahi ndax ñun ay tuut tànk lañ daanaka ni ñaar fukki ak juróom rekk si lañ toll kon ragal naa ne ay tuut tànk lañ waaye nag jéem a aw si tànki mag ñi nga xamante ni bii ñooy ñooy ñooy sàmm xam-xam te di ko dundal loolu rek a tax ak di laa biire gi nag liñ ci jublu mooy képp koo xamante ni bii suñu borom dogal na mënoo ñoo gis nga mën di ko jëfandikoo ndax xam-xam du doy. wala ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ di gëstu xam-xam yu bari ñu di ko soxla te ñaare bu ñu demee si nit mu jafee leen ko ñu di ko jaaral fi ndax ku si nekk man koo jot jëfandikoo ngir jëmi suñu borom waaye di jéggulu bépp loo xamante ne bii kàddu la gu ñagas ñu wax ko fi wala mu kenn ñu ngi koy jéggulu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te xam ne jubluwoon ko noonu di wax ni sunu jaara bi mi ngi fi waaye di gërëm bu baax sëriñ saalif saane sëriñ saalif Sané ndeysaan doon ku nu bëgg. doon sunu waajur doon sunu mag bëgguñu lool sopp ñu te jëmmi suñu borom rek tax ñuy jokkoo ci lu baree baree bari waaye sëriñ Baara Jaxate moom itam di kilifa nekk Jurbel waaye Serigne Ñanger moom itam ñu ngi koy ñaanal moom itam fanu gudd ànd ku wér barkab Cheikhul Xadim doon borom xam-xam euh, maanaam ñu bare bari daal ndeysaan bu nu limee rek danay jum waaye dañ ciy tànn ñi nga xam ne rek ay kilifa la ñu yóbbaale ñu ci des ñëpp ak mbooleem koo xam ne yaa ngi topp seen bi da doon kilifa. ñenn ñi di ay ustaas ñenn ñi ay boroomi xam-xam ñenn ñi di yëngu ci xam-xam nag di ko bëggee di ko wétalikoo te ñam ñoo ñu ëpp xam-xam fuuf waaye seen bu baax rek a tax ñi di ko wétalikoo kon ñeen di wax ni jaara bi moom itam mi ngi fi jaara bi nga xam ne dox ci wàllum bayre ak xëcc ay nit ci wàllu mbooloo ak xëcc wërsëg mu doon jaara bu kiimaane li ma daa wax rek jaara bi moom képp ku ma ko jox te li ma la wax gisoo ko ci kàttanu suñu borom boo dikkee ma delloo la sa xaalis. waaye di jaajëfal ñi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi ñi xam ñoo féete bitim réew ñoom ndeysaan da leen di nax ci wàllum jaaro lu baree bari wallaahi azim maanaam ñoom ni leen di naxee sax daa ëpp waaye bu nu fàtte ni dañ ma koy woo di ma ko kalaamee nga xam ni nit ñi da leen di nax ci lu baree baree bari bari li may faral di wax nag métier moo dem rek am na ñu dëng am na ñu jub te sunu métier mi ñu nekk da cee bari ñoo xam dañ koy wutee alal te mbir mi du loolu man fii ma nekk maa ngi sama place de liggéey maa ngi sama place di liggéey ñu fi jotee ñëw xam nañ ko ci man maa ngi sama place di liggéey ñu bari di dégg sama kàddu bu nekk si woon ba ci man deneen xanaa kii du kii du sang bi wax ci YouTube bi ndax nu ñu bari nekkuñu ca dañuy bëgg yem ak ñëpp dañuy bëgg yem ak ñëpp moo tax waaye lu bari ñu diwoon ko jaayuñu ko loolu moo tax waaye ñoom itam ndeysaan ñu ngi leen di jégg lu baax a baax ndax da gis nit rek ci YouTube bi nga woo ko jox ko sa alal mun la man laa nangam waatal la ci yàlla te li gën a yem da leen di jaayee jaaray lu seer a seer sax ñi ay cent cinquante mille ñi ay deux cent cinquante mille te li la ciy wax bëriwul te mbirum jaar dafa doon lu compliqué mbokk yi koo koo ko ci jox di ko yónnee sa xaalis na ko gëstu ba mu leer wallahi bu téeméer jógoon ni mën nan ko boo xoolee diis rek ko cay man yu wér man gu wér diis a cay man man gu wér nga xam ne yi mën nan ko dafa doon lu compliqué noonu nag bii nu yor. li ñuy wax nag taxul ñu bëccëngal kenn wala ñu doyadal kenn c'est que dafa fekk nit ki bu fekkee ne bu waxee kàddoom sori te ñi muy waxal itam jëmi suñu borom rek tax muy wax war na leen a invité loolu bari ba yu bari ñu mën koo moytu ba du ñëpp leen jox seen alal ndax am ñoo xam ne lay dégg rek doy loola ndeysaan am ñoo xam ne di kese lan bu la déggee rek doy loola yónnee xaalis te jamono tollatul foofu ñu bari dañuy nëbbu tool yi di ko naxee di lekk alal nit ñi te dara du li lay wax dara doo ko ca gis waaye nag. lu def rek boppam Sëriñ Tuubaa waxoon na kenn deful kenn dara lu waay def boppam la ko def te buñ ba kàddu googu dafa woyef lool waaye mu doon kàddu gu wér gu mat bàyyi xel ndax lu nit ki def lu rek wallaahi azim boppam la ko def ndax doomu aadama lépp lu mu def cib safaan te gisagu ko gisagul fay ga na leer ni faatoogul bala ngaa faatu lépp loo gis def ci safaan di nga ci teg sa bët ba nga xam ne lii li nga defoon la ko jural suñu borom dana la ko ci àdduna ba gis ko jaxaran ndax baraana waajo yërëm suñu borom moo ko fay yéeneem rek wallahi bari na waaju ni yërëm yàllaa ko fay yéeneem wala yi mu doon jëfandikoo ci moom la ko suñu borom dëppaat ba mu koy def jàppoon ne loolu lépp du am waaye buñ la koy wax naa la kenn deful kenn dara day woyof ci yow lool waaye wallahi da nga dem ba xam ni def lu baax rek am solo ñun nag li ñuy def bu dee lu baax rek lañ ci jublu suñu borom xam na bu dee leneen lañ ci jublu tam suñu borom xam na te lu baax rek nag lañ ci yéene waaye ku nekk ku gisinam ndax nit ñaare mën na mën naa gisee ñeneen wala mu waxee ñeneen waaye danga koy jéggal rek te xam ni toppante baaxul ndax kum mën a doon boo ñu sànnee kàddu gu ñaaw wala nga wax na ko tam wallahi al azim mën na noo toog fi nu toog faj ko waaye loolu dañu fee wul kuy dimbaliwaate ko nekk euh, doo do doo doo doo fayantu ndax fayantu amul solo sëñ Tuubaa nee na kuy tooñ di mucc waaye kuy tam du noppalu ñun foofa la nekk waaye luñ ci waay mën a def rek wala nga wax na ko wallahi mën na la koo faj ci lu gaaw a gaaw a gaaw mën nañ ko faj ci lu gaaw waaye nag jëru ko xam-xam kenn du ko xeexee yal na suñu borom dimbalil boppam jaara bi ndombareesal ge tam mi ngi fi ak ndomba gi nga xam ni boo ko amee lépp la mën a def kenn du ko tudd waaye li may faral di wax yëpp bu ko waxee tam muy ndomba googu nga xam ne dafa doy waar par exemple bu ko nit ko amoon mën naa lekk alal jàmbur du mujj fenn par exemple geneen nga xam bu ko nit ki defoon amoon takk ko bu raay nit tam du mujj fenn kenn du ko tudd. la maa def kenn du ko tudd waaye loolu du ñëpp leen koy liggéeyal bu nu ko waxee leen ko présenté rek pour ngeen xam ko waaye bu ñu jàpp ni lépp leen ci lépp leen koy liggéeyal ndax ñun duñ taru faru kenn ci ak tooñ ndax kuy tooñ ak koy faru yéen ñaara yam duñ faru kenn ci tooñ waaye ñaara nit nekk diggante boo xamante ne bii amul doole dafay am loo xamante ne bii am dimbal rek moo koy am faral la dimbali bakar loolee lijjanti ko dem joxe ko nam ko bëggee loolu rek a tax ñi di ko ñu di ko ñi di ko liggéeyal ñenn ñi ndax wallahi des fois ñu dikk ci yow. nag ci diggante lool nga xam ni kii boo ko taxawul du baax ci moom mën nañ koo yoon te bu fu fa duggee njabootam gi nga xam ne ñoo aj woon ci moom ñu bari nañ daal tumuraanke ndax moom lañ yaakaar moo tax waaye ñëpp lañ koy liggéeyal ci bëgg lu mel ni ak wàllum yëkkatiku ci wàllu barab yi xeet wu nekk daal maanaam mi ngi fi maanaam daal ni ko mën a waxee ci tënk lépp lu ci waay soxla ba ci mbirum fu ak lépp buñ ci dégg neen la teg ci yoon incha allahu rabbi mbirum leerlu say mbiri tam lépp loo xam daal islam dina ko nangu ñun ñu ngi ciy yëngu bay mbirum noob ak xeet yi yëpp nga xam ne yaa ngi bëgg ñu te yàlla rek tax te nga yéen a ca ab sëy lu si nekk mënal na cee ñaanal ci kàttanu suñu borom di leen jaajëfal bu baax a baax nag di leen jéggalu ci kàddu yi nga xam ni moom la ñu jiital waaye dafa fekk ni ab julit bu nekk li ko war mooy soññ morom ma rawat na sa kàddu jo defu sori li may soññee rek laa daa soññe muy góorgóorlu jaamu suñu borom ragal ko te topp ko te ëmbal ñëpp ñu baax lépp koo gis rek nga yéene ko lu baax boo yéenee nit ñi jàmm koo gis nga yéene ko comme sa bopp dafa naa ko am jàmm di ko am ku ko amul di ko am te nga nag góorgóorlu sa bopp ba kenn du la mën a yàqal ndax nit ki di nga ko yéene jàmm te moom du la yéene jàmm ndax baraana ñoo xam ne nekk ci mbir ba yàgg ñu yàqule te doomu aadama rek leen koy teg moo tax na ngeen góorgóorlu seen yaram aar seen bopp ba kenn du leen mën a yàqal ci lu baree bari bañ a def nag kenn lu bon yéene ñëpp ñëpp lu baax yal na saa borom dimbali leen te dimbali ñu saxal ñu ci ak taalibe ci barkeb Cheikhul Khadim defal ñu jàmm bu ju sax dàkk ak wërsëg wu lew te barkeel barkeb alxuraan te bari tey mbokk yi li leen indil mooy li jëm ci wàllum bayre bayre bi nag doon lu am doole lool te am solo ginnaaw boo bindee kun bismillahi rahmaani rahim comme ni ngeen ko gisee allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama rasiman nga def bismillahi rahmaani rahim nga bind aram nasara lak sidrak ba mu jeex benn yoon alam nasra ngay bind ba mu jeex benn yoon nga def zuy na li naa saxawaat ba aaya ba jeex ma itam wallahu indoo usnul ma ab falayam benn yoon alam nasra ba mu jeex tàkk nga bindu zuy na li ba mu jeex tàkk benn yoon ba pare mbokk mi nga tëral xaatim bii boo xamul ni dugalee xaatim boo ko joxee ku ko xam mu dugalal la ko mu nga duggee 330 fa la duggee 330 sa kaw ci digg bi fa la fa la xaatim ba duggee boo ko xamul boo wanee ko xam mën na la dugal incha nga taral xaatim bii ba mu yegg boo noppee nga wëralee ko ka annahum yaquuta wal marjaan moo ko wër ko wër ci suuf ndajoor kaw càmmeñ côté yëpp moo ko ci wër kaw ak suuf ndajoor càmmeñ ka annahum yaquuta wal marjaan moo ko wër ci wet yëpp ba pare nag loo koy booleel timin timin timin timin sungufus timin timin boo ko laajee ñiy jaay xeeti sunguf yeeg yooyu xam nañ ko ak laj ko lañ bu neex nga boole ko lépp def ko saafara nga de ko sangoo boo koy sangoo nag bul ko sangoo fa am sobe na sangoo ci barab bu sel bu dee kaw terrasse baax na bu dee foo xam ne amul sobe baax na nga sangoo ko fa ñaata fan juróom-ñaari fan nga koy sangoo incha allahu rabbi bayre jigéen bu am doye la bu gaaw ci koo xamante ne bii dangay yëngu ci xeet yu mel ne xeeti njaay yi xam soxna soxna yi dañ koy soxla te bëgg ñu lay dikkal bayra bu ci am doole soxna yi dañ la sopp lool te dañ la jublu ci kàttanu borom yal na ko suñu borom barkeel te bu ko barkeel yal na ko nangu te bu ko nangoo yal na leen ci defal lokkaay seen jot ci barke alxuraanu karim ñoo ngi jéggalu mbokki taaliba yëpp di leen ñaanal jàmm gépp kàddu fi ma wax mu déranger kenn yal nga ñu ko jéggal te yal na sunu borom boole baal ci barkeb alxuraanu karim jéggalu borom xam-xam yi ak ostaas ak nit ñu baax ñi ma sunu borom boole ci seen bi ndax xam naa ni ñëppay doon borom baax ndax nit ñu woyof lan ñu baax lan di jéggalu bu baax a baax képp koo xam ne envoyé nga vocal te lii ko wala nga ñu woo jotoo ñu ngi koy jéggalu te xam ni ñaare jàpp gi moo koy waral ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu